na ngeen def. ñu ziar bu baax a baax alhamdulilah. léegi delloo ziar bu baax a baax foo ñu woowee. maa leen di woowee ba Paris la France. naka waa Paris. waaye ñu ngi nii di góorlu rek. waa yaa ah, ah loolu moom am na solo vraiment <laughs> góorgóorlu moom am na solo. waaw noonu la de xam nga rek moom Sénégal moom fu mu nekk góorlu rek at bañ moo fa moo ko fa tax e, effectivement effectivement am na solo. waaw dama bëggoon participer ci émission bi parce que j'aime bien votre façon de faire surtout seen tele ayca bismillah. Euh, di rafetlu rek débat bi am na solo trop. Mhm. Euh, que ni Sénégal ñin dañoo war di def attention tey calculer bu baax. Mhm. parce que dafa am loo xam ni dafa nekk ci ñin gis nga affaire diabolisation bi ngay wax. Mhm. nekkatul kese kese kese si homme politique yi mais dafa dugg si kër yi léegi ba jaxase ko. Hmm. li ma lay wax nii man dama ko subir. ah d'accord xam nga boo nekkee si réewu démocratie te ñu ne dëkk bi dëkk démocratie la réewu réewu démocratie la. Hmm. je crois nit ku nekk am nga droit far fu la neex. te népp noo koy defee na nga ko defee si yara teggin. Hmm. mais da ngay gis nit ku nekk ci kër nga far fii keneen far fee keneen far fee te teewul du ngeen mës a réeroo du mhm. ngeen jaxasoo du ngeen am benn werante mhm. ku nekk day comprendre sa morom mhm. loolu mooy politique loolu mooy politique dëgg dëgg dëgg mais politique bu demee ba nga nekk ci kër nga ni man fii laa far ñëpp fa la ñuy far boobu nekkatul politique boobu dictature la <laughs> te dictature bu ñëwee ba infiltré si biir kër yi ça veut dire que li si biir li ci biti doy na waar sëñ bi mhm, effectivement ñin ñemeetuñoo wax parce que fii lañ far pourquoi parce que suñu suñ ku ñu jege fii la far te bëggul kenn ku fa wax mhm. te lool war nañ koo sóoraale nit ku nekk am nga droit da ngay gis benn rajo wala benn organe boo xam ni kii am na droit far fii kii am na droit far fii mais da ngeen koy waxal football da ngeen koy def si fair play ñëpp ànd. Mhm. mais buñ demee ba nga xam ne boo ŋaaŋee ñu tëj sa gémmiñ wala ñu ne la doo fi reeree wala ñu ne la doo fi naanee <laughs> wala ñu ne la non parce que lool moo am Sénégal li ma lay wax nii dama koo xam. dama koo xam man kay comprendre naa comprendre naa bu baax a baax. que dafa am dafa am réalité boo xam ne ñu ngi koy dund te lool yëpp xam nga ñu ñu ko teg. politiciens mhm. yi. xam nga def si TikTok yi da ngay gis gars yi di di di def ay ko naan ku faral diw nangam parce que da ngaa lekk di resal wala nangam nangam nangam mais effectivement boo xoolee signal bi gars yi di di di di joxe si TikTok. Mhm. waxuma saa yëpp dëgg la de mais quatre vingt dix huit pour cent yi dëgg la et puis Sénégal yi sont très éveillés dañuy xalaat di gëstu di lijjanti. léegi mhm. tollatuñ dëkk boo xam ne wala moment boo xam ne nit loo ko wax rek mun a waaw da ngay ñëw ni ko ni nanga mun a waaw nit loo ko wax même bu ne nay waaw ne teg teekaaral xamal ni bu tëddee ma ngay xalaat la nga ko wax ndax dëgg la. Mhm. internet bi dafa wane lépp. Mhm. maa ngi leen di gërëm di leen di sant seen émission maa ngi koy seetaan chaque jour. merci merci parce que euh, dama koy wax sama gars yu bëri dama leen di woon di leen wax ay affaire lii la xew ñu ne ma yow nan nga mën a nekkee foofu ñun ñu nekk fii nga ñuy wax information ñu ne leen ma ne leen ñun amuñ benn problème. <laughs> ah da ngay sàkku information rek information moom ku ko sàkku xam ko. kese kese. ma ne mhm. ñun problème bi ñu am mooy liggéey wàcc ñëw toog si kanamu télé bi. Mhm. amuñ grand place amuñ toog wër di ataay amuñ di lijjanti leneen gis nga ku si wàcc toogal say njaboot journal ngay jàpp dugg YouTube mu jox la information yëpp. Mm, effectivement Sénégal dafa métti na boo xam ni les gens n'ont pas le temps de s'informer. Mm-hmm. ñu bëri nag laa wax waxuma ñëpp nag mais ñu bëri ils ont pas le temps di xam li nga xam ni moo am si réalité yi. effectivement. waaw mais loolu nag toujours comme yéen yéeneen ñu fi te yàlla boole nañu yéen Mhm. organes yu mel ni yéen ñu leen di sant di leen gërëm que ni ñun fu ñu wéetee rek buñ jàppee seen chaîne yi mhm. suñu xel day dellusiwaat te nit ku tukki ku nekk loolu dama koy wax suma mbokk yëpp képp kuy tukki bul fàtte sa dëkk effectivement loolu am na solo lu métti métti dangay ngay dellu nga yore fi nationalité da ngay dellu mais mhm. loolu moo am mais maa ngi leen di gërëm di sant bu baax di gërëm tamit seen directeur bu baax a baax euh, ak ñu jigéen ñi ak euh, surtout Pape. Hmm. Euh, kii bi nu ko tuddee ci sax. Pape Ali nu mu tudd sax sa waa ji. dëkk bon tur yi dama koy fàtte. <laughs> mais daal sant naa leen bu baax maa leen di gërëm bu baax jërëjëf waay. d' accord d' merci on, de toute façon euh, dañ des xaw desee nañ comprendre mais man euh, xalaat naa ni quand genre monsieur ay dara ngay wax moom mi nga xamante ne euh, daanaka deux ans bi muy tijji ci ci moom la jaar moom mi nga xamante ne lépp li nga xamante ne ñor na askanu wi ñor na ñor na ko moo tax it jamono ji sax moom moo jiite dëkk bii di Géejawaay nekk maire de la ville yemu ca itam bëgg askanam bëgg koo xeexal mooy tax it nee na daana dem ca pencum ndaw réew mi assemblée nationale foofu daal di leen fay teewal donc doon jéem a wax ko moom mooy El Hadj Ahmed Aïdara ñoo ngi koy nuyu sax di ko jox wàccu waayam bu baax a baax wax ko ne gars yi gën nañ laa gisee daanaka bi ñu fi gëjee ñëw <laughs> ndax ñi nga xamante ñoo di mbokki internet yi dañ koy rek daal di donc su nekkee am na ko nekk ligne bi ba léegi ñu wéyal waxtaan wi fàttali leen ne tey vendredi la daanaka dañ leen defal antenne antenne libre ku ci nekk yaay xool li nga xamante ne euh, yitteel na la lool nga rek woote daal koy daal waaye lu ko mooy itam ah, indi nañ leen ay ponk ñetti ci ay ponk bokk na ci Ousmane Sonko mi dem euh, ni ki démb ziar ñi nga xamante ne ñoo di njabootu euh, Seydina Seydina Thiaw Laye ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon màggal 143e euh, anniversaire bu appel bi nga xamante ne maam Limamou Laye defoon defoon na ko ñu génn ci vraiment ñaan yi nga xamante ne jot nañ ko ci amal ñu ñaan yàlla rek sunu borom daal di koy daal wasaare ci ci ci Sénégal yëpp lam fa lam fa lam fa jëlee nag gis ngeen ko ci ci journaux yi bokk na ci wàllu wàllum jàmm ji nga xamante ne porte parole ba daal na ko koy dénk surtout moom mi nga xamante ne ah, ndaw yi nekk ci biir réew mi jox nañ ko bopp lool beneen bi mooy wàllum luwaas gi nga xamante ne ministre bi gàlloon wàllum ak jënd ak njaay daal dinañ xam ne ne ci mardi ki ñu jëm ah, mardi wala le premier je pense que c'est le premier ah euh, le premier mars euh, ci lañ ñuy nee dañuy rekk daal di euh, promulguer li nga xamante ne moo di euh, loi bi laa euh, di daal di tàmbalee wàññi li nga xamante ne moo di luwaas ndax am ngeen yaakaar loolu daal di antu ndax gis nañ ni njëkk dund gi nga xamante ne jëloon lañ dogal wàññi ko waaye dafa mel ni yëfe nañ ko daal rek daal di gën a fulandi ndax jamono ji may wax ngeen li ñu wax suukar nga xamante ne dañ ñëwoon ne téeméer ak euh, fukki dërëm waru koo weesu jamono ji nag yokku na fa li ñuy wax soble nga xamante ne jamono ji sax ci ndakaaru ak li ko wër ñu koy gis bariwul ci ay yenn koñ da nga koy daal di am kilo ba na ci 700 francs ah pomme de terre wax waxi waxi waxi noppi donc euh, njëg yi nga xamante ne wàññi woon nañ ko ba léegi ah, amul euh, jëmm jëmal ji nga xamante ne njortoon nañ ko te sénégalais yu bari waxoon nañ ne ngistal rek la daanaka suñu jëlee mesures yi nday ah, bees bees rek nit ñi xaw a moom waaye suñu demee ba ci digg bi rek amul lenn loo xamante ne euh, commerçant yi nañ ko daal dinañ koy daal dinañ koy sàmmante moom daanaka li daanaka moo fi am moo fi am ndax njëg yu bari kenn respect te tu Tuko bokk na ci kilo suukar bi nga xamante ne yokku na pomme de bi yokku na euh, soble si waxi noppi donc euh, respecté googu nga xamante ne ñottoon nañ ñàkk respecté gi nga xamante ne ñottoon nañ ko ci prix yi gisuñu ko ndax luyaas bi nga xamante ne wax nañ ne daañu ko daañu ko wàññi li ko dalee le premier mars ndax am ngeen yaakaar ne lii daana daana effectif ko ci amee xalaat mën nga jaax ci numéro yi daal di woote joxe ko lu ko mooy itam yow yaay xool rek yow mi di seetaan bëgg joxe sa xalaat waxtaan wi nga xamante ne moom nga moom moo la soxal am am yitte lool ci yow nga nga daal di woote daal di koy jox ndax euh, vendredi comme je vous le dis libre la def waaye mënuñu ñàkk rek indi leen ay ponk donc am na ko nekk ci ligne bi xam naa